allo dakar point com
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de allodakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصبي فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعني أيها الرجل صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصبي فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعني أيها الرجل
jërëjëf sëñ benn maa ngi ziara di am mbégte ñëw si plateau bi ziar président Modou Ndiaye Sylla tiir gi mu posé question noonu xam naa ne fan bi ñu si comme ni nga ko waxee ñaan yàlla lu waay lekk mu rees lu waay naan daa def mu rees si biiram xam nga lekk lu mu neex neex neex mën ko sabare dàq yi le nekk lu mu lekk lu mu neex neex neex di géré ko mu gën a neex kon ñaan yàlla may lépp lu ñu lekk lépp lu ñu nooyi mu nekk bànneex si noonu lépp lu ñu naan mu nekk lu rees si noonu ko yàlla rek moo ko mën def wax yàlla di baax si alquran aoudu billahi min shaitan rajim qul illahumma malika al mulk tu'ti al mulka man tashaa'u wa tanzi'u al mulka mimman tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tudillu man tashaa'u bi yadika al khayr innaka ala kulli shay'in qadir war ñu ubbeetee waxtaan bi di wax rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أن يلير سنو خول أك سنو خير وي سنو دن درسي خم خم وخم دفا جرين يوم مو سنو وخ أك سنو ديكين بدي بغ وخ مو أك لين كي بغ ديكين مو أك يالا رك مو كمان يالا ما كي خم كن خمون كم خمان غا خم kum téye sa loxo ni doo xam doo xam dara abadan yi kon tey dañuy waxtaan ak yoonu nguur xam nga toog sa kër lekk sa supp kànja lekk sa ceeb lekk sa lu mën doon yàlla la soob ko neexoon nga ñàkk lépp doo am dara ko neexoon nga lekk benn ñëpp doo lekk ñaareel doo lekk ñetteel ko neexoon nga lekk dara du rees mu nekk dafay juru teñ wala mu bëgg dafa xam da nga am coono yàlla may na nag nga lekk ba mu rees nga ni yàlla jërëjëf alhamdulilah kooku mooy sant yàlla si lii la yàlla defal kon yàlla ne moo tax yàlla di man man yàlla man maay maay maay buur di moom buur maa di kër man man maay buur man yàlla buur nag mooy koo xamee ni lépp moo ko téye si loxoom kooku mooy buur buuru Makka buuru Maroc ak fii buuru Angleterre yëpp moom pouvoir moo ko téye si loxoom Solomon Angleterre buur bi ni defee décret li kenn def lii loi bu dëkk ba dafa imposé ne li buur bi wax moo fa dox ba faaw kon buur bañ na lii roi Charles bañ na lii kon loolu moo fa am nga dem Saoudia ñu ni le roi Salman moo décret ci lii waaye Arabie Saoudite ka toog nga dem Maroc noonu dëkk ba am roi noonu su dee président suñu dëkk yi président su décrété les gens doivent obéir à la loi parce que président moo décrété ndax kuy décrété war nga décrété loo xam ne dafa dafa make sense décrété loo xam ne dafa nekk dëgg décrété loo xam décrété loo xam soo fa jógee ku ko xool dem ni bravo wala mu ni cam sa kenn ñu bon na ndax kenn waru fooy nguur kenn ko fooy yàlla ne mën maa moom nguur man yàlla te nguur yàlla yëpp yëpp a jaar yoon ku topp loi nature rek doo jàdd jamais ndax yàlla lu mu def excellence ci doxalin ci dicté ak ci ak ci ay orientation yu dugg ñëpp doomu aadama lu yàlla dugal moo gën ci yow lu yàlla décrété ci nature moo gën soo ko xoolee ba si biir tôt ou tard da ngaa xam ne nii yàlla def ko wala mën naa ay borom nguur tax mu wax que nag mooy dafa laa prévenir li yow mi nga xam ne yaa nekk si kaw suuf nekk ambassadeur am nekk représentant doxalal nguur comme comme ça su dellu si si moom. te de rendre compte danga xam yow yaa ngi nekk kon si nguur goo xam ne ni justice moo ko doxaloon justice moo ko laloon justice nga justice nga doon doxal ba ak si ba ak delluwaat ci moom moom sa borom yàlla ni maalikal mulk man yàlla maa moom maay buur bi moom nguur maay buur ba pare maa moom nguur maalikal mulk maalik mooy mooy buur mulk mooy nguur yàlla mooy buur bi moom nguur doo xam ne ne buur donc pour yàlla si absolu buur c'est absolument moo tax yàlla rek moo ko moo ko yeyoo dans ce monde on dañuy wax ay buuru màkk ak buur xaw ma fan waaye buur ci dëgg-dëgg yàlla rek moo ko moom mooy ki jël décision tàggu kenn kenn kenn kenn dañoo ba ne ki yàlla lu nga tax nga def lii yàlla bindee doomu aadama dafa informé malaaka yi boobu tàggoo leen dafa leen informé ñu ne dama bind doomu aadama boo xam ni moom maa nekkal ci kaw suuf kon nit ki am na devoir boo xam ni responsabilité boo xam ni kenn am nga ku dul moom moo fi nekkal yàlla ci kaw suuf donc nguur yàlla yàlla bàyyi ñëpp tekk ci loxo bàyyi na ci jinne bàyyi fi malaaka bàyyi fi ay ay bàyyi ma yoo xam sax ñun xamul rek ay mbindeef yoo xam kenn xamul leen dul yàlla soo nekk ñoo ngi nekkee noonu suba ngoon mais doo leen gis ndax yàlla moo ne bind noonu yàlla seppi doomu aadama ni walaqad karramna bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kasirin mimman xalaqna tafdila yàlla ni nun yàlla nun noo honoré doomu aadama def ba lépp lu kaw nekk si kaw suuf ak si biir ndox mi jéeri yi ak jéeri yëpp nga def ko à la disposition doomu aadama doomu aadama domine ko te Descartes di wax l'homme est possesseur et maître de la nature son possesseur et maître de la nature ñu yàlla jox boobu responsabilité yàlla ni inna aradna samawati wal ard wal jibal fa abayna an yaxmilnaha wa xamalaha al insan innahum kanu zaluman jahula yàlla dafa fa responsabilité pour pour diriger fa responsabilité boobu dénk asamaan asamaan daw ndax dafa rëy ci moom àttanu ko bu dénk suuf ni ko suuf dama bëgg nga nga sama responsabilité bii ma ma laa dénk nga nga maintenir ko defal ko suuf ni man àttanu ma ko dafa rëy wax montagne montagne daw dama aadama jóg taxaw ne ko yàlla man nangu naa ko ma maa ko dégg naa doxal sa mission kon dama aadama am na loo xam ne kenn amul ku ne daw nga dama aadama jël ko boo ni mu mel yàlla xam ni defaree yàlla sàkk si loo xam ni dafa la ko dox yow pour nga doxal mission sur terre am nga lu rëy loo xam ne kenn amu ko rëy loo xam ne moom adama rek moo ko ndax nguur kenn du ko fooy kenn du ko fooy yàlla bàyyi na fi ñëpp ñëpp ñëpp tekki sa loxo yow kenn waxum tokki si tekki sa loxo jinni dox tekki sa loxo malaaka ndax malaaka leer la malaaka du mooy yàlla tekki sa loxo ñeneen ñu ko soob mi bàyyi fi ñëpp dama adam yow laa koy jox xool moom bu responsabilité rek ak boobu corrigé bi yàlla def si noonu góor góor góor ndax yàlla kon yéen a ma doy yéen doomu aadama li mu bëgg sur terre kon jox naa leen loo xam ne joxuma ko kenn def naa ba lépp nekk seen sujet nekk seen disposition ngeen def lu leen neex sama coobare yéen laa sàkku ngeen nekk lu ma si kaw suuf des fois par conséquent nguur gi ma bëgg ci kaw suuf ngeen doxal ma ko alayhi sallahu bi ahkamin hakimin yàlla mooy ki nga xamee nag à la fin moo noon jugé na te moo dàq jugé yàlla ni kon qul illahumma malika al mulk yàllaay buur bi nga xam ne moom moom moom nguur moom moom nguur loolu rek thème bu yaatu yaatu yàlla mooy buur bi moom nguur wax nañ buur c'est absolu nguur su ko dee joxe it c'est absolu en lui mais pour ñun c'est un nguur la boo xam ne c'est limité dans le temps et dans l'espace ndax kenn fi nekk buur pendant mille ans soo fi nekk mille ans da ngaa deeri tôt ou tard ne ko foon buur démb doo fi nekk buur électeur yi nga fi nekk buur président yi même chose ministre même chose ak responsable boo mënti am te nga fi nekk loolu ne ko foon loolu démb doo fi nekk loolu ëllëg moo tax nit ki war na toujours xalaat la mu am fa mu ko jëlee ak fa mu ko yóbbu yàlla jox na xel xel dafa dawal loolu li ma yàlla jox awma ko woon démb du ma ko am ëllëg teel ak li ma yàlla jox mission la boo xam ne kon accomplir que su ma gisee sama borom du ma rus ma bàyyee ñeneen ñoo sama gannaaw it kenn du ni cam ndax li ci ba baaxul lépp dañuy taxaw approuvé ma ndax li ma wax def rafet la durant ma mission sur terre durant moom moom bi nga xam ne moom la yàlla moom la mu yàlla jagle ma nekk fii di ci liggéey liggéey boobu donc nguur dafa ragal moo tax gars yi daan ko daw gars yi daan daw responsabilité ndax suñ la tegee dara ba jox la benn place wala jox la benn responsabilité rek da nga xalaat yow si digganteeg sa borom ndax daa ko mën def da nga xalaat sa digganteeg nit ñi ndax daa def loo xam ne doo leen lor doo leen gaañ suuf su jógee mu nekk koy bu rafet malikal mulk yàlla la yàlla boobu nag moo nu sàkk na mu ko waxee moo nu jox daggitu nguur daggit la daggit ndax moo nguur absolu moo ko moom mais mu jox nu daggit bi un pour cent rek la ñu jox ñu defe ñun ñu defe ne un pour cent boobu mooy lépp rek moo tax ñu nekk dof un pour cent la yàlla jox yàlla jël quatre-vingt-dix-neuf yëpp teege foofu un pour cent bi nga defee yow li nga am un pour cent bi dañ distribué adduna bi yëpp yëpp yow ngi xëy na yaa ngi si am sax zéro point zéro zéro zéro un pour cent nga defal nag loolu mooy mille pour cent yi rek ndax dof defal nag nga accaparé lépp teegi si kaw teegi sa loxo def la neex parle woo kañ particulier de sens absolu et pourtant da ngaa dee et pourtant da ngaa xëy suba tëli et pourtant doo fi nekkati après quelques années et pourtant lu ndaw rek mu ngi ñàkk en une seconde mu ngi ñàkk li nga am yëpp nga xalaatoo loolu ndax le pouce lan la arrogance la wala le pouce lan la bëgg la wala le pouce lan la soxar la wala le pouce lan la añaan la wala lu kenn xamul mais gisatoo lew zéro point zéro zéro zéro zéro un pour cent bi nga am si buur yàlla kooku ma nit ki war na dalal xelam ba pare dawal xelam na xam ne yow seen nekk ci sur terre gàtt na rawatina yow li nga fi am comme responsabilité dund nga ba am trente ans amoo responsabilité cent ans ba soixante dix ans wala quatre vingt ans ngay am responsabilité maximum ah cinquante ans fii doo mën dara moom soo dee roi bu doon nguur sax moom soo dee doomu roi bu doon nguur si baayam wala si yaayam bi nga nekkee buur ba mu fi jógee waroo mat quatre vingt ans si kaw suuf parce que naa nag nga xam politique la nga xam ne dafa jox nguur rek ak loo ko mënti am loo ko mënti amee. boo mënti dem bu di nga am sur terre lu gàtt lay doon lu gën a gàtt sax sa existence sur terre yow dadul cent ans xanaa soixante ans nga fay nekk buur wala quarante ans wala vingt ans nga fay nekk li nga fa war a nekk après pare nga keneen jël et la vie continue la vie continue nag après nag ce sont les mémoires qui restent les souvenirs qui restent ba mu fi jaaree ba mu fi defee lii ba mu fi waxee lii su rafetee gars yi tàccu su ñaawee gars yi xarab ba pare nag desu xarabu yàlla nag yàlla faa xarab yàlla faa tàccu it yenn jaam suñu pare si adduna bi la vie ne s'arrête pas là adduna ñemul fii rek si yemee dafa am trans adduna transition la vers un autre monde le monde éternel foofu na ngay rendre compte nag na sa monde éternel jeex na wala door na te kenn sa monde éphémère bi jeex na tàkk ku ne sa dund bi nga xam ne du jeex ba faaw dafa ma ngay door bi nga xam ne sa dund bii si kaw suuf dafa jeex tàkk tàkk tàkk nugurul jeex nag mooy àllaaxira ma yàlla ni maalikal mulk faren tuutil mulka man tashaa'u yàlla mooy jox nguur kaka neex yàlla nee na nguur man yàlla fab naa quatre-vingt-dix-neuf pour cent yéen adduna bi yëpp laa séddale yow nag adduna aadama ba yow nag xiyam wax naa leen un pour cent pour ngeen séddoo ko kon képp ko jot yaa ngi am zéro virgule zéro zéro zéro zéro zéro un pour cent man maa taane ku ma ñaax ma jox la boobu nguur waaw ak durée ba ma sàkk si yow ak place ba ma la teg ak temps ba ma la teg ci dinañu après cinq ans ci ñëw après dix ans ci Sénégal lay yem ci adduna bi yëpp lay dem ku ni kii kii fi mu liggéey lay yem kon ku ne am na nguur dagitu nguur goo xam ne dañ la ko limité jox la ko mu nekk sa poche nga téye ko yàlla ne ma kooku man man yàlla maa def loolu fu mu ci mën ko mën te cher ma leen jox nguur maa kaa jox kama neex kama neex nag ëpp fi xam-xam ëpp fi mën-mën ëpp fi sañ-sañ ëpp fi capacité maa tànn ku ma neex man ma jox ko tax nit ki war na xalaat mu am dara ba demoo ko ni maa fi dàq lii wala maa fi mën gën a mën lii jamais yàlla la baax na amul kenn ku fi nekk nguur si nguur gën a mérite yi nga xam ne amuñu ko jamais boo ko xaalaatee rek dof nga amul kenn ku yàlla teg ci benn position kooku gëm ni moo fi gën a mën lii jamais amul te du am ba yoon xeex yàlla lay soob yàlla lay soob teg la foofu rek bàyyi fi ñoo xam ne ils sont ils sont intelligents bàyyi fi ñoo xam ne ëpp capacité bàyyi fi ñoo xam ne ëpp taar ëpp la lii ëpp la lii mais yàlla foofu si mbaaxam tànn la yow pour nga pour mission lu mu bëgg nga jox la jox la ko parce que parce que da nga si war jàng diisoo da nga si war jàng xool sa alentour bala ngaa def dara da nga si war jàng li nga xam ne dafa paase ak li li nga dund yëpp nga analyser ko boole xam ni ngaa doxale ci kaw adduna moo tax mu te xikma ba xikma mooy sagesse ak xereñ nguur dafa xereñ képp ku nekk si nguur war nga xereñ sun na nga dox ko xereñ nag du arrogant doo yare di ko doo soxar doo añaan doo ëñ ëñi mais def lépp loo xamee ni dafa gañ doomu adama fa dafa tax nga am sa meru borom ndax moo la tànn parmi tant d'autres fab lii teg sa loxo oo la bu teg sa loxo bu kadee loo si përëm yàlla jox parce que mbuur or lu yàlla amee rek or la wala jamono la ba la neexee yàlla fab jamono bu teg si tuuti teg sa loxo pour nga polir ko yow def ko jaaro teg takk ko sa loxo mu fam ne ko jamono bi la yàlla jox jaawale ko ak përëm sànni ko wala boog nga wan ne ko te dañ ko waroon poli ba mu rafet def ko jaaro takk ku di gis admiré ko loo xamoo wala dem nga wan ne ko taxaw wala nga sànni ko wala nga weccee ko benn parce que xamuloo valeur am ku dof kenn ko jox nguur ku yore kenn la jox nguur ku saay-saay kenn la jox nguur ku añaan kenn la jox nguur ndax fu la ko joxee adduna tukki nga def su loo xam neexul yàlla neexul nit ñi kooku nag fépp la yàlla ñu maa joxe nguur dama ko jox nag nga xam lu tax ma jox ko ko maa ngi koy wax maa ngi koy wax souvent yàlla nañ fi bàyyi million de personnes dox la benn nguur daggitu nguur fais attention fais attention daggee boobu la jox mën na la sànq mën na la defar soo jiitalu sa conscience sa xel daggitu nguur boobu la yàlla jox moo laa lor moo laa defar attention si nguur danceen ko li gars yi di wax tuuti lu mënta mënta saaw yàlla nee na ma jox nguur te kama neex laa koy jox xooluma fii xooluma fale xooluma cosaanam xooluma na mu mel xaw ma xooluma couleur am ak la muy làkk maa ko jox lii rek xooluma dara moo doon xool làkk kañ wala maa xool raaso wala maa xool leneen du ma ko jox kon dama tànn ñi nga xam ne xëy ñoo fi gën raas wala ñoo fi gën li ma jox leen man xooluma loolu man ma tànn kama neex te du ma tàggu kenn nag dafa mu tekki si rox kama neex man yàlla ku mu neex maa kaay def ku mu naqadi man maa kaay def ku ànd ak man baax na ku àndul ak man sama yoon nekk si ay yàlla ndax maa la moom moom keneen ku dul yow kon la ma neex nga war déglu la ma neex nga war def la ma nox la ma neex nga war d'accord ndax maa moom te maa joxe kon maa joxe nguur kama neex su li mën ko mën tasha wa tanzirul mulka mimman tashaa yàlla ne damaa rocc nguur par force jox ko kama neex maa kaa maa kaa rocc si kama neex jox ko kama neex waaw maa kaa rocc par force nag si kama neex loolu kaka man nii rocc bi nag du la tàggu mën nga nekk le plus brillant yàlla soo rocc nguur ci yow kaka keneen kaka ni gis nga jox ko kon sa bopp moom kaay rocc sa loxo yi dafa seet la ka neex moom yàlla moom ba ka neex moom yàlla mu nangu ko ci yow par force kaka keneen kooku ne il faut nga nangu ko il faut mu nangu dogal yàlla nangu dogal yàlla soo ko nangoo rek am am jàmm soo ko bañee am coono soo ko nangoo am jàmm soo ko nangul am coono yàlla su na may dara nga d'accord si am nga jàmm su na may dara nga bañ si d'accord am nga coono dafa laa dafa laa efface sax moom yàlla dañuy wax ne yàlla su rëddee ñu jëm efface yàlla dafa toog di loxo rek ndax la mu bëgg force mu am mu bindaat nga jëm efface yàlla taxaw di loxo rek troisième fois bu nag mu effacé la yow sa bopp après décrété la mu décrété mooy am ba léegi kenn mën ci dara donc soo nekkee fenn ba yàlla rocc ci nguur mën ci doon nag ak loo mën ci def yaa fi gën a smart ba léegi yaa fi gën def léegi yàlla rocc na nguur nangu ko mooy sa noflaay lu jox sa bopp lu may sa bopp ku mënul sa bopp dara mënul dundal sa bopp mënul def dara ki la may def lépp dox la pat nangu ko nga mer dóor sax moo na la war def dóor dóor su leen génn sama kër foo jëm génn sama asamaan génn sama kaw suuf demal bu noy sama air foo jëm borom kër sax sa amee surga surga bi surga bi di ko contre su doogalee surga bi ni ko man d'accord ma borom kër gi def naa ko génn sama kër te xam jëmal ndax ndax yow tu n'as pas obligé amee loi amee sort kon génn sama kër yàlla nag su leen génneel këram foo jëm ñun asamaan nga mën nekk bu dul asamaan yàlla ban suuf nga mën dox dul suufu yàlla ban een nga mën nuyoo dul eeru yàlla kon xamoo ko laa dundal xam fa xam wax ma ko léegi laa rajo li jeex kon yàlla ni may roc ci nguur man yàlla jox ko kamay neex man yàlla تنزع الملك ممن تشاء يروتشنك كده يروتشنك والخم فم لا جاري ولا لا daa dem bëtt am doole sax yàlla teg la jàngoro bu daw te nag sa diggu doole yàlla fab nguur googu wàññi ko sokke ci ni lu mu créé situation boo xamul si dara dara dara dara dara sa amee xam da ngaa da nga naan yàlla d'accord naa si yaa ma ko joxoon yaakaar nangu yàlla d'accord naa tax mu tax war na fu mu toll mu di xelam di ko animé xel xel képp ku am xel di doxe xel doo xelu ku am xel doxe xel doo xelu naka nga dox nànk daa pas mesuré xam jaatik sa tànk fan la boo ko defu da ngaa sànk ko yàlla ni tension mënka mi mën tasha woko teg si watu izzu mën tasha yàlla mooy teral kaka neex honoré ko ka neex xooluma loolu rek ku ko neex nag lay honoré wax na ne seetul fa nga bokk seetul fa nga jóge seetul sa parent seetul sa yaay seetul sa lii seetul sa lale daf ko neex rek mu teral la yow fa mu teg sa loxo moom neex man naa kan ba bëgg ki sunu yàlla si loolu naa kan man bëgg ki sunu yàlla ci loolu xëy suba yàlla jox na ma nguur suba si yàlla ni kii laa kaa jox rocce na ko ci man jox na ko kii ma ni non d'accord ma si lii lu tax lii lu tax lu tax lu tax mooy coono mooy coono waccu ay jumante sew yàlla ma nga xam mooy teral kaka neex kaka neex mënti sew kaka neex loolu kenn nekk si yàlla mooy faalu li ma yurid ba nga xamee ni la ka neex la day def fa mu ka neexee na mu ka neexee gën a nekk si kenn bu yeboo nga mer bu yeboo nga xafe bu yeboo nga tilis gën a nekk si faalu li ma yurid ci dëgg-dëgg dafay def la ka neex la ka soob fa mu ka neexee na mu ka neexee ak fa mu ko bëggee yes tax ma ne ma wa tuizzu man tasha li mu fa indi ngëm rek xam nga moo tax ngay ñi ngi gis yàlla aaya bi yàlla see jàngale ngëm ngëm ki gëm yàlla yàlla dogal def seen def seen def kat def seen d' accord yàlla dé décrété def naan alhamdulilah rabbil alamin moo tax ngëm dafa am solo doylu am solo waa kiddus yàlla am solo lool lool lool ba dara ju la yëkkati fii yóbbu la fale yaa ngi toog sur place yaa yaa li pied sur terre li gars yi di wax wa tuizzu man tashaa gëm yàlla dafa am solo ndax balaa jox yi balaa nga am responsabilité war nañ ne war nañ war na tàggat ci gëm yàlla ak diine boo mën ci nekk nag li mooy fondement diine yoo gis di mooy fondement bi li may wax ni pour ça s'applique au christianisme et au judaïsme ak religion révélée xaw ma ne yeneen di ndax ñoo bokk fi mu manque yàlla na moom même ñi nga xamee ne sax amuñu leneen gëmuñu yàlla sax humanisme lii dafa dafa dafa wax l'humanisme humanisme lay wax nit ki war a dundee en tant que doomu aadama waroo soxar waroo añaan waroo bon waroo añaan waroo añ añ ma doon def yëpp kooku mooy doomu aadama te te religion moo si gis surtout islam bi ñu nekk humanisme boobu nag day prôné moom la ñu doxal ñëpp soo xoolee sama jigéen Élise wala keneen même chose pour le christianisme ak yeneen religion ñoo ko bokk valeur yi yëpp ñu ñoo ko si suñu valeur universelle donc nga xool ni nga doxale parce que ay zumante si waaw góor yàllaay seet ka ka neex mu honoré ko tekki si loxo te xooloo dara ci moom daf ko neex rek su yàlla tànn nag am na la war am na la war wax nañ ko la la war mooy fexeel ba la yàlla teg sa loxo pour si jaar ba def loo xam ne sa borom daf la mel lu yàlla jox sa xéewal teg ko sa loxo fexeel ba bu si jaar ba def loo xam ne sa borom bi la ko jox dana la ci mel waaw kooku ba kooku baat bu am solo nañ ko dégg bu baax a baax bu yàlla jot xéwal lu mu mënti doon fexeel ba bu ci jaar si xéwal boobu ba def loo xam ne sa borom na fas ci mbir adduna bi nga nekk tax rek sa roxo mission la assignment la te daa rendre compte sa borom ne man xew wa tuzillu man tashaa'u yàlla mooy ki nga xam ne mooy teraasi ku ko neex daaneel ku ko neex wàcce ku ko neex ci tàggul kenn gën a nekk si su la daaneel ne nga barasi ko kenn mën ci dara nangu ko xam yàlla li yéege woon ci kaw mën a wàcc ci suuf nga nangu ko moo la dégradé te ku si ni la mu def si yow moo gën ci yow quran moo wax aoudu billahi min shaitan rajim asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu yaalamu wa antum la taalamun yàlla nee na yenn saay daa bañ dara fekk moo gën ci yow yenn saay nga bëgg dara lool sonn ci loolu fekk baaxul ci yow man rek man yàlla maa xam li gën xam li baax yéen xamu leen dara xamu leen nit kon ñaar dina la wàcc sax ngay xataraay fekk loolu moo gën ci yow soo ko xamoon nga def tout pour rester fekk yàlla ni loolu nga wàcc léegi nga génn bi moo gën ci yow nga bëgg dara di si dee loolu sonn suba ngoon yàlla ni baaxul ci yow lu ne nga def ko si fekk doo kam mu jar la lu nekk fekk doo kam ba nga am ka sax te doo ko jëriñoo wala nga jé nga am ko pare mu nekk coono ci yow wala nga am ko pare bu nekk loo xam ne dafa dugal foo xam ne daa rëccu lu tax nga duggoon ci wala lu tax nga amoon ko wala doolu àdduna gatalo mos si liñ see mos bàyyi kenn mos lu mu war a mos soo bëggee li gatalo yëpp da ngaa sonn rek ceeb jën bi taxaw nga bëgg lekk ceeb yëpp su gàññe ba toog nga nam bool nga bëgg lekk soo ko lekkee guddi gi doo taxaw yëpp ceebu jën bi taxaw nga gis ni mu bare rek nga bëgg lekk benn booli si benn benn guddi soo ko lekkee doo taxaw kon da ngaa lekk li nga si war a lekk bàyyi keneen lekk am war a lekk moo tax muy doylu am solo waaye doomu aadama dafa fëqale daan lekk ba ba fëq dër yi gaa di wax moo dof rek loolu dina la ko jox rek moomuloo ko yàllaa ko moom teg la fii may la lii defal la lii jëlal la mu la may te yem sa soo paree nga jox keneen mu jël lam sa moom ñu koy passé te ba mu soob yàlla waaye mos mu neex ni ngeen jeex na maa moom lépp ma dof ñu jël jiiteer xelam yàlla moom lépp suuf si yàllaa ko moom temps bi yàllaa ko moom espace bi yàllaa ko moom ku ne fam la teg la mu la jox mos sa jël si bàyyil keneen mos jël la mu moom yàlla lépp ci yàlla ndax mu yëddigal xeer yàlla lu baax yor yaa ko moom lu baax ak bànneex ak nguur lu mën doon yàlla yaa ko moom ndax si yow lay dellu moo tax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi ñëpp yàlla moonu moom wa inna ilayhi lépp lu ñu am nag mën ko yàllaa ko moom te ci moom lañu dellu kooku il faut doomu aadama jiital xelam si loolu ndax yàlla nekk ala kulli shay'in qadir yàlla yaa ci nga xamee ni dara tewu la oho dara tewu la yaa mën yëkkati mën terrasse mën joxe mën xañe mën nangu loo joxe alhamdulilah rabbil alamin loo nangu alhamdulilah rabbil alamin foo nu yóbbu alhamdulilah rabbil alamin moo tax ñun jullit yonent bi alayhi salaam al muslim kullu xayr xayaatuhu xayr wa mamaatuhu xayr jullit léppam xéewal la dundam xéewal la génne addunaam xéewal la lépp da nga kenn nangu ni yàlla jërëjëf parce que nit ki war na doylu xam na ko yàlla may mu jël ko te ko yàlla may mu bàyyi ko foofu te yàlla jeexale ay dossier mu jóg taxaw yàlla jërëjëf maa ngi fépp na ci kër yi ci si organisme yi ci place liggéeykaay yi ci présidence yi ci nguur gi yëpp ku ne war nga xam ne la yàlla may fa mu jeex nga nangu soo bëggee toog nag soo bëggee toog nag ba indi problème nga am toog yam si yàlla mosi fitna des fois moo gën a métti sax rey fitna yàlla di wax ci alquran wal fitnatu akbaru min al qatl dafa fitna moo gën a métti sax rey am ñoo xam ne nga rey leen sax moo gën fitna bi nga leen teg waaw it's too much am na yoo xam ne ils préfèrent mourir léegi parce que suñu jaar it's too much c'est torture seen mind dafa torturé seen yaram dafa torturé duñ nelaw dee sax mën nañ gën a dund loolu nag loolu nag doomu adama fa àggal boppam jëm si li yàlla may def lee yàlla digal force te àgg foofu pour ne la àgg nga bàyyi ndax jaru ko kooku mooy doomu adama dañ jiital yàlla xam yàlla daj yàlla ñaan yàlla yàlla nekk suñu wet ñu wax ñu lépp lu ñu wax méngale ko ak li yàlla wax ko defee foo toll da nga am jàmm génne boo mënti nekk da nga am jàmm parce que tool ñoo defoo lu bon da da ngay appliqué li yàlla wax topp li yàlla wax toppaloo sa bànneex bànneexu bakkan moo dugal nit ñi si lépp ndax moo indi puqale ak bëgg ak lu kenn xamul suñ jiital yàlla ak suñu xel ba jiital suñu xol ak suñu bakkan
صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك ايها الصبي فقال له الصبي وهو لم يعرف انه النبي صلى الله عليه وسلم دعني أيها الرسول